voilà tey dañ fi daje woon si li ñuy tuddee CRD comme ni ñu koy defee chaque année su màggal gi jubse euh, muy réunion boo xamante ni day dajale comité d'organisation bi ak lépp luy service technique yoo xamante ni soxla nañ sa loxo dugg si organisation màggal bi pour mu mën a am si anam yu rafet nga xamante ni junniy téeméeri junni téeméeri junni nit yi nu fiy gis chaque année ñu ñëw si jàmm màggal si jàmm dellu si jàmm. ba mu ko defee taataan nan li nga xamante ni moom la comité d'organisation bi jébbal administration comme soxla et pour chaque soxla bi ñu ko waxee jox nañ kàddu chef de service bi mu waxal su boppam lam ca mën a def ak la nga xamante ni dooleem àggul foofu su ko defee nag gouverneur mooy jël relais bi àggale loolu dakaar pour waa Dakar gunge mais au jour d'aujourd'hui li ñu mën a jàpp mooy tont yu ñu joxe déjà dal na xel si lu bari. waaw soo jëlee wàllu sécurité bi kaaraange bi soo jëlee wàllu euh, wérgu yaram bi soo jëlee wàllu cet gi soo jëlee wàllu tali yi donc tontu yu ñu joxe fi mu nekk dal na xel am na nag ay yu tuuti yu des yu dem si wàllu onage comme camion manque yi comme toilette mobile yi si wàllu hydraulique au fort comme wàllu camion citerne yi wala bache à eau yi ndax lim ba ca comité d' bëgg li nu amagum. comme lu disponible mateegu ko donc yooyu la ni ñaaxat waa dakaar pour ñu gunge ñu si nga xamante ni lépp incha allah dina jàppandi màggal gi jaar si anam yu yu mucc ayib. sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ci bi nga xamee ne boole nañ ñu ci organisation màggalu Porokhane bi kon ñu ngi koy sant sëriñ Bassirou Mbacké di ko ñaanal waaye di ñaanal sëriñ Modou Mountakha Mbacké Bachir mu yàgg fi loolu te wér ñun ay ndaw lañ ñu yàlla baaxee. ñu dëkk ci soxna jaara nekk ñu war a doon ñoo xam ne nii ña am yéen ci soxna jaara di fa ñëw di ay gan ñu war leen a mën a teeru teral leen ci ndigalu sëñ Basiru ni mu ko waxee. sëñ bi nee na mi ngi leen di sant monsieur le gouverneur ginnaaw bu leen bu mu leen nuyoo ba noppi eh, di leen gërëm ci yitte yi ndax moom yitte rek ko ñor te xam na yitte yi nga xam ne màggal gi ak ségur waaye def ngeen ko ci lépp wax nañ ko wax nañ ko. Euh, CLD bi nga xam ni sous-préfet amaloon na ko ca Porokhane ak CLD bi nga xam ni préfet amaloon na ko ci Nioro wax ko itam bii tey lay am wan ko it yëpp wan ko këyit yi fu ñu ci toll wax ko ko mu ne boo demee daal li ngay njëkk a def bala ngaa soññee mbaa ngay fàttali mbaa ngay laaj lenn santal ma leen gërëmal ma leen ndax man yitte ak yéene rek moo ma ñor te xam naa ne am nañ yitte am nañ yéene ci màggal gi ndax lañ mën kat buñ ko waxee jéem ko wàcc nañ te xam naa ni loolu moom moom lañ moom lañ def ci réunion yi waa weesu bu tey bi moom la ñuy def kon nag moo leen santal gën a ma leen sant li ak ngërëm li nga teg ko ci loxol gouverneur kon monsieur gouverneur suñ baax nag mi ngi lay sant mu ngi lay nuyu te di la seeral itam cant ak ngërëm loo xam ni comité d'organisation bi nga xam ne da koo wut mu xaw a mel ni wu Touba. sëñ bi da koo def rek ngir ginnaaw service yi nuy dimbali bari nañ war nañ fukk mbaa fukk ak nangam bu ñëwee rek bëgg a dem ci sëñ mbaa ñu bëgg a dem ci keneen lan bëgg du sotti mu seet ci nag taalibe ñoo xam ne nangu nañoo wallanteeru bàyyi seen i kër bàyyi seen njaboot toog fa di nekk kenn ku ne la nga xam moo xam sécurité la moo xam ndox la moo xam courant moo xam yoon la mbaa lu mu doon boo ñëwee fekk ñoo xam ne dañ cee ànd ak yow wan la ni ko sëriñ bi bëggee ak ni mu amee njëriñ ci nit ñi loolu rek moo waral comité d'organisation bi ñoom ñu def ay commission waaw loolu moom la ñu sëñ bi digaloon man man maa ko jiite jiite naa ko lu war a mot fanweeri at ak juróom defe naa boobu ba léegi day yokk waaye du wàññiku sunu déggoo ak yéen day yokk waaye du wàññiku suñu suñu rafetoo ak yéen day yokk waaye du ràññi amul benn at bu mu fàttaliku boo xam ni réeroo am na suñ diggante <laughs> wala digee ba noppi defoo ko boo ko defut dana xam ni ni ñuy xamee ne mënoo ko noonu noonu nga koy xamee kon nag wax dëgg yàlla mën nañ ci seere bu baax loolu sëñ bi xam bam ne ba mu wax ne naa naa naa cant ma ngërëm naa ko teg sa loxo bul bàyyi kenn ñu ne ca département ñu ne ca ñu ne ci département ak ñu ci région bi yëpp chef de service bu ne te bokk ci màggal gi mu ngi lay sant mi ngi lay gërëm di la ñaanal te bu ko defee ci turu ñëpp la ko def li ci des nag mooy dajeb tey bi moom dama ci sant yàlla bu baax ndax fekkee naa daje yu bari waaye na mu daan rafete rek ni ngeen ni ngeen waxee yéenee ni bu ngeen señoon màggal gi da yokk waaye du wàññiku na mu daan rafete rafetaay bi daa yokk mat gi dafa yokk ak gi dafa yokk kon nag loolu sent naa ci yàlla bu baax sant leen ci gërëm leen ñu dax si yéen yéene rek la am na ci ñoo xam ni seen màggal gu njëkk la am na ñoo xam ne miinaguñ ko waaye doo ko xam yéene ji lépp benn la bëgg-bëgg benn la jublu bi benn la kon nag maa ngi sant yàlla waaye maa ngi leen ciy gërëm di leen ci sant di ko seeral monsieur le gouverneur ak ak suñ préfet bii nga xam ne ak ak suñ super nga xam ne ñooy suñuy kilifa ca ca département Nioro seeral ko ñëpp Euh, kon nag noo ngi ci sant di di di di gërëm ku nu digg daal te man ko def nga ko moo tax sun suñ njort rafet ci dige yi nga xam ne def ngeen ko ak yéene yi nga xam ne wan ngeen ko wane ngeen ko rafet nañ njort ci ne rek incha allah da ngeen dan dan dan dan àgg ak jàmm euh, li ci ëpp nag yéen na koy def li ci ëpp ci région bi la ci ne Ndakaaru moom la ci aju bariwut li ci aju nag moom monsieur le gouverneur ci loxoom la ne te xam naa ne yéene ji ngeen am moom lañ ci am ndax <clears throat> màggal gi moom ñun ñëpp ko bokk ñu may wax ni ku ci bëggu te bokk rek yàlla boole na la ci benn ngay taalibe benn ngay jullit wala benn nga am nga nga am mbokk muy muy loolu muy jullit te mbokk boo ci boo ci amee mbokk rek ca nga bokk bokk bokk rek la euh, kon kon wax dëgg yàlla euh, xam ngeen loolu wane ngeen ko. wane ngeen ko ci seen yéene wane ngeen ko ci seen jëf kon nag noo koy noo ngi noo ngi noo ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm te di leen ci soññi ndax itam sunug màggal la yàlla muy dogal dogal na gox bu ne am na lu mu fa def loo xam ne bu agsee ñëpp bokk ko ñëpp dégg ko fii nag moom euh, ci ci wàllu wàllu wàllu wàllu murit yi màggal Porokhane moom moo moom la fi ñëpp xam ni ko gouverneur waxe sëriñ bu ne Touba da ñëw moo xam bàyyi nga moo xam nijaay nga moo xam maam nga ku mën tey ku ku danga indi sa njaboot noo ngi sant bu baax di di di gërëm di ci rafet njot di ñaan yàlla mi nga xam ne euh, dara tawu ko mu boole nu dimbali nun ñëpp ndax kat waa géej ci jàmm ak salaam ne mu dem na war a dem deme demee na mu war a demee yéen lañuy wax noonu la ñuy wax lu ci sooxee yéen la ñuy wax noonu la ñuy wax te li ci doy waar moo di nit ñi buur lañ buur bu dañoo buure buure goo xam ne bu dee téeméer ñaar fukk yàqu ci mbaa fukk yàqu ci la ci des duñ ci am soo dañu naan màggal ga yàqu na rek bu ndox amul ñu ne màggal ga yàqu na bu courant amul ñu ne màggal ga yàqu na bu yoon yi baax ñu ne màggal ga yàqu bu doyen yi lëj lee ñu ne na bu gendarme yi taxaw ñu ne màggal ga yàqu na bu garab yi doyet ñu ne màggal ga lenn lu ci manqué rek dañ koy féetali ci ñëpp loolu nag moom yàlla mooy seetub jaamu tànn tànn tànn ko nattoo ko dara loolu mooy yàlla leen ko nattoo kon nag nañ ci jàpp rek nañ ci jàpp ba suñ kam te laayal kàttan ni ko daan defee ndax booba léegi rëcc wuñ ko kon nag yàlla na ci yàlla dimbali ba ni nu ko yéenee nu mane ko defee noonu euh, tàmbale ko ci bisimilah ak ko ci alhamdulilah